asalaamaaleykum vote bi nag ñaari vote la vote communal ak élection département maanaam ñaari yoon la nit ki di voté soo duggee si urne bi daal di jël bii nii feuille bi nga xam ne feuille bu weex la am mandarga bi nga xam ne ay loxo yu jàppante la mooy ànd nawle nga jël dugal si urne bi bul tëj enveloppe bi soo dugalee daal defaat même chose jëlaat bu mel nii dugalaat si enveloppe bi bul tëj enveloppe bi bu ko coller daal di ñëw dugal ci département bi ñu fal président Serigne Mboup si commune bi fal Benjeloum si département bi di si ñaan doomu Kolokwa yëpp ndaxte lii nii vraiment fii lañ mën a jëlee Kolok changé ba faw tegu si ay loxo yu wóor ay loxo yoo xam ne ay nit ñu am valeur ay nit ñu am valeur ay nit ñu am valeur mooy ànd nawle ànd liggéey président Serigne Mboup Ahmed. salaamaaleykum salaamaaleykum li tax ñu toog jël lii tey. lii naturellement la dikke lii du chaque fois lay am du chaque fois lay am mais fee yu mel nii bu amee li ci am solo ba am solo mooy nga immortaliser ko tey daanaka Touba ak na bàyyi noonu daje ci salle bii ñoo daje ci coalition ànd nawle ànd liggéey Serigne Mboup jiite commune bi te Bengeloun aussi jiite su nee Touba ak Medina Baye daje ci kanam tuuti di ngeen ci xam dara ndax su ma gisee nii sëñ Mame Balla Mbacke nañ xam ne daanaka Touba taxaw na fi Mbacke Mbacke bete bete Mbacke ci nday Mbacke ci Baye Mbacke ci maam Mbacke ci maamaat bete bete pire ngi nii kii mooy Touba kii mooy penc mi kii mooy sëñ Basirou kii mooy sëñ Muntaxa kii mooy Poroxaan lépp ci biir coalition bi ki dend ak moom tey di sang di Baye Mbaye ñas ñëpp ko xamee ko ci MC man duma ko mën a présenté ndax sama xaritoo ak moom dafa dépassé diggante cëriñ gi nga xam ni war naa mën ndox sama diggante moom bëti xarit ak bëti àndandoo yi ma koy xoolee dafa dépassé fii mais gëm naa ni kuy wut coalition ak ku bëgg a wote ba gis Tivaouane gis Médina Baye gis Touba ñëpp daje ci salle bi te sëriñ boobu dajale leen loolu amatul leen lu ñuy wax. lu tax ba si sant yàlla da nga wax euh, lu am solo dafa am da nga wax lu am solo da nga da nga dajale Touba ak Medina ci ëttu sëriñ boobu bi muy wax ju am solo mais wax ju rëy mais wax ju rëy mais wax joo xam ni histoire da koy téye loolu dañ ciy sant yàlla. bala ma commencé wax ji nag sëriñ buub moo waral lii yëpp wante sëriñ buub ci biir këram dafa am benn xaritam bu mu fi nekkal boo xam ne bi muy ànd ak sëriñ boobu ñoom ñëpp ku ci nekk juróom benn ñaari at lañ am ñoom ñaar muy sëñ Modou Lo mii nga xam ni moom ak sëriñ ñoo bokkoon nekk kokki bokk lépp mu ñëw jàppale si sëriñ buub ci bés yi nga xam ni moom lay sàkkoo dëkk bi bi sëriñ di dem ci waajuram woo wàññeeku moom la bàyyi kër gi daanaka mu am rôle bu muy bu am importance bu muy joué ci kër gi ndax tey bu fi nekkuloon sëriñ demoon ca dëju waajuram wale ndaje mii du mun a am maanaam nekk gi fi nekk am fu ñu dalal moo tax mu mën a dajale ñaar ñii kon gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonante bi gërëm sëriñ boobu ci boppam moom dañ koy gërëm ci wàll gi nga xam ni féete woon na ko muy wàllu xarit man bi ma ko xamee fii laa ko xamee ci sëriñ mais lépp loo xam ni sëriñ da koy def moom dana ko def ba def lu ko raw mi mm-hmm. ngi xool ci kër gi ñi ñi am lu leen neex mi ngi xool ñi am lu leen naqar yi mi ngi xool ndax mi ngi dox mi ngi xool ndax doxul dem na bay xool sax ndax lekk nga ndékki nga lan nga soxla vraiment kuy dimbale sa mbokk kuy dimbale sa xarit ci taxawaay bii ngay taxaw kër sëñ Modou ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di la ñaanal yàlla di wax ni wane nga ni yow sëriñ sa xarit la bu lii amee sëriñ la naam mais yow yaa réalisé lii boo fi nekkuloon bu ñu am fu ñu dajee ba wax lii bu fi sëriñ nekkuloon duñ fa dajaloo nii sax toog ci sa béréb bii kon ñu ngi la ciy gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàlla na sa ànd ak sëriñ sax yàlla na sa ànd ak sëriñ sax li ngay wut ak sëriñ di ko wut yàlla ñu ko yàlla may ci barke yoon ci yàlla Muhammad bi ci des mooy que euh, mu revenir encore ci sunu sang yi muy maam Balla Mbacke mi nga xam ni wax dëgg yàlla moom it euh, kenn ci sëriñ la moom it rôle bu am importance du sax sëriñ moom mi ngi ci caravane yi mu ngi ci mitin yi mu ngi encadré barki démb ñu ngi dem fële ca gannaaw ŋaade dama jékki-jékki gis ko mu taxaw ci la ni ma ne ko mun a noo baax na bàyyil ma taxaw nii rek man militant la ci doomu sang bu ko noxoon fii lay toog du bouger mètre waaye dafa sol dàll militant jàppale sëriñ moromu sangam fekk su ko muy Baye mbay Baye mbay mu Cheikh Ibrahim kii ku xam baayam xam ni kalifa la ku xam baayam xam ni jàmbaar la li ma gën a neex ci moom courage bi muy waxee deful sax boppam sëriñ boo waxee mu ne man taalibe la boo waxee mu ne man mais sëriñ nga sëriñ du ko tànnal boppam yàlla ko koy tànnal kon ñas gumba ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla jàppale leen man seen ànd bi neex na ma lool ci gën a da a teggi tuuma sëriñ buub fee la kii fee la yooyu ngeen dindi wane ni yéen ñëpp ay jullit ngeen ay jaamu yoon taalibe yoon ci yàlla Muhammad alayhi salaam ngeen ngeen ànd ci gannaaw sëriñ buub mi gis ngeen ni yéen bu sëriñ buub bu ngeen xamoon ni caaxaan na ko jox a jóg ngeen ànd ak moom ndax ci dëkk bi ngeen dëkk fi ngeen juddoo màggee fi yaroo fi xam ngeen ñi baax xam ngeen ñi bon bu ngeen nangoo ànd ci gannaaw sëriñ buub rek man sama dëggal ci sëriñ buub day gën a fér kon ñu ngi leen di gërëm bu baax suñ sang yu baax yi ngeen ñi ñaanal nag gannaaw bi ngeen ànd ak politique bi ngeen di ñaan jël seen kursi di ñaan yàlla yàlla jox ñu ndam ndam loo xam ne dinañu jig loolu laa ni woon dinaa ko ci sànni di jégalu ci kàddu gi yàlla na yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant euh, Cheikh Ahmed Tijani mboolem sant ma sante ko Mawlana Cheikh Ibrahim Niass euh, di kontaan lool ci benn euh, kontaan goo xam ne nii ñu toogee nii ma toog ak sama doom waaye sama grand frère nekk sama xarit ñu bokk benn maam muy maam Cheikh Ahmedou Bamba nga xam ne tey ku ñuy ku ñuy tiitaroo la ci àddina suñ ne kan mooy maam Cheikh Ahmedou Bamba dañuy wax ne mooy nitu yàlla bi nga xam ne yàlla may na ko tey képp koo xam ne sénégalais nga borom der bu ñuul nga war nga ko mën a tiitaroo ndax ci ndam ci lislaam lim xeexal lislaam ba yàlla may ko tey mu ñëw fi yàlla may ko nag mayinu boppam loo xam ne moom làmmiñ du ko tudd bët du ko gis dara du ko gis loolu moom diggante moom ak yàlla la kon sant yàlla ci loolu kii nag mamba la tey suñ ñëwee dajee fii dafay mel ni bees la du bees maak moom suñu ànd ëpp na fanweeri at ñu ànd ndax fii mooy suñu dëkk ndax suñu dëkk ñun Kaolack lañ dëkk tey ñëpp xam nañ ne sëñ Bachirou Mbacké doomu maam Cheikh Ahmedou Bamba la ñëpp xam nañ ne moo jur baayam tey ñëpp xam nañ ne man Mawlana Cheikh Ibrahim Niass moo ma jur tey fii ma ñëw nii dama génnaat sama kër ñëwaat këram ndax tey ci penc mi lañ ñëw penc mi tey soo taxawee jégg tali bi da ngay am fi nga xam ne foofu la ñuy wax angal lislaam angal lislaam nag dafa am histoire bu ko indi histoire bi laa leen di wax Cheikh Ibrahima Niass ñëpp xamoon nañ ne shaair la waaye maam suñu baay sëriñ Bachir Mbacke ñëpp xam nañ ne shaair la loolu nag looyeen bi nga xam ne tey arabisant la nekkoon ci al azhar xam na bu baax lu ma koy wax mu bokk ci moo sëñ Bachiru Mbàkke suñu baay bokk na ci téere xasida yi nga xam ni maam Cheikh Ahmedou Bamba yu ci bëri moom moo ko bindaat moo ko gëstu bokk na ci lu bëri ndax ku déggoon arab la ku déggoon naxu la ku mënoon a bind la shaar dëgg la muy sëñ Bachir te gis nga moom ak baay dañuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñaar su bàyyi julli woon tàkkusaan moom mu julli dañ doon ñëw ñoom ñaar dajee fii fii ñu dajee woon angal lislaam looloo tax nit ñi tuddee foofu angal lislaam yàlla may leen gis nga bëggan bëggoo guñ bëggante woon yàlla day def tamit ñu niroo moom ak Cheikh Ibrahim maga rakk lañu woon yoo xam ne dañoo niroo ba pare bëggante kon tey kii nga xam ne mooy Mame Balla Mbacké man ak moom du gàmm du tabaski du korite lépp lu mën mënti def maa ngi moom ci Kaolack gi mësuñoo tàqali ko dañuy dem heure bu ma jógee dakaar ñëw guddi gi su ma toogee fa ñuy toog ñun di fa waxtaanee shaahi bi ci boppam moom mooy def shaahi bi ñuy jël di naan di kii ba bërki démb ci jàngam yi damaa jóge tey ba ñu seen ñëw kon maak moom amul benn amul ñaar amul ñett déedéet benn jëmm la rek benn jëmm la buñ xaaj nii rek teg ko waaye lépp suñ ko delloowaa rek dafay dellu ci benn jëmm ji mooy man man maay moom mooy sëñ Bachirou Mbacké man maay Baye yaa ngi dégg waaye tamit fu mu nekk nii mooy Baye Niass maay sëñ Bachirou kon la ñuy wax ci sëriñ buub tey dama bëgg ñu xam ni fii amul affaire tariqa amul affaire fiila la féete gis nga sëriñ buub taalibe la nongam daara la nongam daara soo ko nekkee amul koy gis tey kan moo ma gën a bëgg Cheikh Bamba amul ñëpp a ko xam amul waaye taalibe Tijaan laa taalibe Baay Ñas laa Baay Ñas laay nooyee te tey sëriñ Touba nu mel sama xol mënuma la ko wax tey maa ngi nii tey man mii doomu Baay sama famille yaay taalibe sëriñ Touba amul kenn ku ci nekk tijaan ñoom ñëpp ñu ngi fële parce que kii ñun dañoo bokkaat maam ndax man da nga naan lajjoor ma sekk fàjjoob yaa ngi dégg ma sekk doomu lajjoor la moo jur sama maam sëñ Bachiru sët la ci lajjoor soo demee kër sëñ Baara mu mag bi sët la ci lajjoor soo demee kër sëñ Saaliwu sët la ci lajjoor ñun ñoo bokk ba pare ñun ñu nekk waa Daaru Xuddus kon sama kër yëpp ay muri lañ terewul man tijaan la mais loolu soxlawuñ ko ñun liñ soxla mooy jàng bi ak daara jiñ nekk sëriñ boobu da nitu daara la ki nga xam ne dafa xeex ci daara di jàng di jàng nekk kaw-kaw loolu laay wax toujours kaw-kaw la kaw-kaw bu jàng tey ba tare alxuraan jàng tey ba taxaw ci Sénégal ñëpp tey képp kuy nongo daara da nga koy tiitaru mu lay neex mu lay naqari ñun far force dañ koy tiitaru lu tax ñu koy tiitaru lu tax ñu koy lu tax ñu koy tiitaroo mooy lim def ak jëfam jur rëy ji moo tax ñu koy tiitaroo kon sëriñ buub xoolu fi tey na baay gi nga xam ne mooy Maad Alaaji Abdoulaye Niass ci boppam soo xoolee ci boppam tey mu ngi nii xaaru ci kenn ba mu ñëwee gis ne classe yeeg yii dafa ci dafa taxaw mënoon naa taxaw ne man Touba dëkk mais defu ko dafa dem moom ñëw ne parce que xam-xam lay xeexal xoolul kii ma sàmba wala ma dàmba lislaam gi lay gën a dëgëral ba pare di xeexal li nga xam ne mooy ndongo daara moo tax mu ñëw jël ay kiyam def ko tàgguwul kenn taxawal def ko te gëm naa ne suñ toogoon fii benn daara am problème mu yëkkati def ko tax exemple tey ki nga xam ne kooku moo jara tiitoroo mooy kii gis te du xaar ku ko wax tey ñu ngi nii demal fële Fass Cheikh Tidiane hôpital boobu ñëpp gis nañ ko nu meloon dispensaire boo xam ne suñ la ko wanee ba léegi vidéo yaa ngi fi ka tëdd tëdd ci suuf ka nangam nangam ci suuf moom ba mu koy gis xaaru kenn ko ko wax dafa dem dimbale leen defar ko ba mu rafet ñëw indi fa leneen ak leneen te ba mu koy def deful ko pour leen alalam la jël defee ko kon kooku suñ gisee yenn profil yu rafet yooyu nga am ko tey nekk liggéeykat lan lañ war a def ñun ñun ay doomu sang lañ dañoo war a bàyyi suñu sang googu ñëw jàppale ko parce que suñ ko jàppalee jàppale wuñ sëriñ boobu de suñu bopp lañ jàppale parce que ñun Kaolack lañ bëgg mu développé ba pare li muy defar tamit ñun dañ ciy gis suñu bopp kon ku yaakaar ne yow sëriñ boobu ngay jàppale da ngay nax sa bopp parce que sa bopp ngay jàppale parce que dañoo gis ne acteur de développement la moo tax ñu jàpp ci ngoy ci pour mu gën ñoo dimbale jox ko Kaolack gi mu mun koo téye mun koo defar loolu moo tax ñun ñi ñu bàyyi suñu lépp ñëw te képp koo xam ne ndaw la wala muy sëriñ te nga am xel am xalaat man li ma lay wax mooy jéema la def ni ñun jéema la def ni ñun ay ndongo daara lañ ñun waruñoo xool kay jàng tubaab ñu cay topp ji te tiitooro déedéet ñun sëriñ daara bi nga xam ne tey alquran la jàng ba yàlla may ko tey mu taxawal lu rëy lii ñun loolooy suñu tiitar dañoo war a toog ci moom ñun exemple la ci ñun référence la ci ñun idole la war a nekk ci ñun parce que loolu sa première fois ci Sénégal wala mun naa laa wax fii ci Sénégal gi ñu dëkk nit koo xam ne jàng daara ba tekk ci daara tourné waat di liggéey nekk euh, opérateur économique bu mag boo xam ne àddina yépp lay xool wax dëgg yàlla soo demee ba toll fii nag def ko ñun loolu ndam googu suñu ndam la ñun ndongo daara yi looloo tax nag suñu àndee nii pour ñëw jàppale sëriñ def jàmm rek la ñuy def kii suñu grand la mu ngi dëkk fii saam suñ grand ñun ñi ñëpp moo ñu yar mooy grand Diass tey mu ngi nii tey yaa ngi dégg su fekkee taalibe la kenn gënu koo nekk taalibe bàyyi yaa ngi dégg waaye yooyu nañ bàyyi idée yooyu ay ay kii murid la kii tijaan la kee xaadir la kii loolu amut senegal gëm-gëm nit a koy am ci xolam def ko yaa ngi dégg man suma ma taxawut ne nit man doomu Baay Ñas laa kenn du ko xam soxlawuñ loolu yaa ngi dégg soxlawuñ loolu nit ñu baax ñooñu liñ fi def nañuy jéem a taataan ci seen barke di am ci seen barke di ñaan saa su nekk yàlla defal ñu seen barke yi suñ kaw waaye soxlawuñ ay kii diw lii la diw lii la diw lii la dépassé nañ yooyu nit ñi dépassé lii lañ amoon pour wax ko vraiment di wax ne nit ku baax a nii frère boo xam ne macha allah wax dëgg yàlla Mbàkke Balaay sa Euh, di la ñaanal ci sa barke maam yàlla taxawula te dëgëral la ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suñ mag jiiloo oustaz Lo wax dëgg yàlla kon nu nga ko waxee moom ak euh, nga xam ne moom ak président ñoo bokk jàngandoo nekk xaritam wax dëgg yàlla kon nu nga ko waxee ndax su taxutoon ak yow duñ mën a am sax jotaay bi bay toog nii bay waxtaan nii parce que li nga fi teg moo tax affaire bi gën a ubbeeku vraiment mu nekk euh, nit ku baax vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér yàlla gën koo dëgëral daal loolu lañ am jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Baye maa ngi lay nuyu euh, di am mbégte bu baax na ci jotaay bi euh, xam na am na ñu bees ci ñoom sax waaye am na ñoo xam ne xam nañ ko bu yàgg ndax di nga wax ne sunu diggante du tey démb la woon yàgg na lool muy loo xam ne sama maam ak sa jur ñoo ko doon seq ni nga waxee rek nga nekk baay ci man loolu yàlla moo ko def ndax noonu lañuy noonu lañuy doxee ma ndongo loolu bu baax a baax waaye bu loolu lépp weesoo tamit mooy xarit gi ak euh, bokk gis-gis gi ak bokk bëgg-bëgg bi ak bokk fu ñu jëm yàlla gën a dogal loolu bu gën ñoo boole kon am na mbégte bu baax a baax ndax man dama doon dama ne woon fii ma nekkoon nii bu ma amoon ku mel ne yow sama wet sama xel dana dal te wóor na ne li ñuy ut nañ ko am loolu moom bañ tàmbalee ba léegi ci loolu laa nekkoon waaye sunu borom dogal ko yàlla xam ne ñoom suñ doo yi ñoom ñëpp mën nañ maa seet loolu du loo xam ne dama ko wax ci kaw nag waaye loolu moo nekkoon sama mébél moo nekkoon sama bëgg-bëgg kon bu yàlla dogalee loolu am dama ne taw féex la xëy na ndimbalu sunu borom moo ñëw euh, ci loolu ñu doon bëgg ak di ko xalaat kon nag ñas jëf euh, li nga li nga wax moom mooy li nga xam ne mooy lu wér ku bëgg daal xam ne Kaolack la ñor moom jàpp naa ne da nga ñëw def nii nga def nii ndax ku bëgg Kaolack mooy wane lii nga wane nii bu la neexoon nga dem foo xam ne la nga fa la la ñuy joxe wala lu mën a doon ci àdduna war na war nañoo ko mën jox waaye loolu taxu jóg la la tax a jóg mooy loo xam ne njëriñu askan wi la te loolu man am naa ci firnde ju ndax xale yi nga xam ne ñoo dëkk Kaolack koo ci wax Baye may daan la kooku de nit ku baax la kooku nitu dëgg la nitu nitu lislaam la nitu lu baax rek la bëgg kon ku ku mu dem ne dama lay jàppale am na lu tax mu lay jàppale mooy yàlla moo tax ak bëgg gi mu bëgg Kaolack te man loolu amu ci lu may lu may werante kon na ñas jërëjëf euh, sant nañ la bu baax a baax wax dëgg yàlla sunu xel gën naa dal sunu njot tamit gën naa gën naa dolleeku gën nañoo am yaakaar ci lii ñuy wut kon yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def muy muy muy lu sedd guy nag waaw ñu bokk ak ñëpp incha allah bi li ma ci wax xam naa moom xëy na ñu bari bari sax dañ koy umpale Euh, nit la koo xam ne euh, ni mu yaroo mooy daara maanaam faw mu nga nga mën a xam nit mën a ànd ak moom ci loolu parce que day nit koo xam ne dëgg dafa dëggu maanaam lu lu amul lu muy tricher ci boppam ni mu mel noonu lay noonu lay noonu lay exprimer wu euh, man wax dëgg yàlla li ma li ma ñor ci doomu aadama mooy nit ku dëggu koo xam ne danaa mën a ànd ak moom ci li li ñu war a àndee mooy mooy jub ak dëggu ak dëggal waaye li ma leneen lu loolu du ma du ma ko àndee nii mën a am nag ma loolu euh, wu ma waaye li tax ma bàyyi sama sama yitte wóor na ma ne xam naa ne bàyyi naa sama yitte parce que am na loo xam maa ngi koy def boobaak léegi waaye nekkuloon loo xam ne sama sama habitude la waaye euh, gis gi ma gis ne njariñ la ci Kaolack mu wóor na ma ne kii bu ko joxee Kaolack dana danañ fi am lu ñu bëgg te man ma fu dul Kaolack Kaolack gi laa dëkk fi laa juddoo fi laa màggee ba nii ma toll hmm. kon bu ma gisee ko mel noonu xam ne am na vision am na xalaat am na bëgg-bëgg bi am na yéene ji kon mënumaa def lu ñëw jàppale ko loolu rek moom war a ma ma ma koy jàppale. wa sallallahu wa sallama ala man ursila rahmatan lil alamin ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi di ñaanal yàlla ñëpp jàmm ak barke ak yërmande yàlla na ko yàlla defal ñëpp bakku ne loo jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla ko yàlla gërëm yàlla defal ñu jàmmi àdduna defal ñu jàmmi alaaxira ginnaaw de yàlla na ñu yàlla wan a lekk rasulullahi dina xaw sax jafe ci man ndax ñaari sang yi dafa am benn aaya alquran boo xam ni yonent bi day wax ni bokk na ci aaya yi gën a diis ci kawam mooy defarul ba jekk bala ngaa defari kenn fastaqim kama umirta ma gis ci ñaar ñi loo xamante ne si nii ci daara rek nga koy fekk li tax daara baax mooy sookul biti tii réew mi tey ba suuxut ndax nitu daara dañuy am kóllëre nitu daara dañuy ñeme seen taarix dañuy ñeme seen démb nitu taarix dañuy moytandiku lépp loo xam ne mooy wor ndax yàlla dafa wax ne pexem workat yàlla du ko jubal te bu ñu ñëwee rek nitu daara bu ñu ñëwee rek ci en benn environnement rek ñëpp dañuy daal di adapté parce que li fa leen suuxat la euh, bàyyi dafa wax lu am solo te li am solo mooy gor du soppeeku du jàpp bay te da ngay bëgg lu baax alxuraan moo ne wat wa tayibaatu min a rizqi qul hiya lilladina amanu adduna lépp lu fi baax pour jullit la dogul pour am ci jugal pour am ci bu desee dogal nga waccee ko yàlla sëriñ bub nekk doomu daara boo xamante ne si nii tey balaa kontaan delluwaat ca daara jëm jóge woon daje ak ñam fa bokkaloon nekk kon ku ñeme taarixam la keroog ba may njëkk a ñëw Sébikotane di ma seet si ne ma damaa bëgg dem Kaolack ma ne ko uti fa lan mënu ma xëccoo di chambre de commerce ma bëgg nga jug léegi ñu ànd dem mën na koy xëccool mun ne moom Mor Mati Sarr ma ko sa baay la doon àndal kon sa baay la kon respect ak xorma bi nga xam ne moom nga jox sa baay rek moom nga koy jox kon nañ ko def ci li nga xam ne mooy yar ak teggin sëriñ tënku ci principe boobu ne ma su ma sañoon Kaolack gën fépp te loola man seede laa ci bu ñu daan nekk Makka wala ñu nekk Médine wala ñu nekk Dubaay lépp lu mu gis mu baax foofu daf koy xalaatal fii kawlax moo xam usine textile bi la parce que sëriñ gëmul ku feebar leen ko ku feebar dañ koy faj Kaolack am na problème dañ ko war a utal solution moo waral mu dekkil textile bi dekkil port bi defar kii cœur de ville de kawlax defar mutuelle bi di fexe fi benn foir boo xam ne képp ku baax te am xam-xam indi na la fii ci biir Kaolack fekk naa moo indi fi ay nit ñu baree bari ay économiste ba ci Youssou Ndour añandoo nañ fii képp ku am rek indi na la Kaolack kawlax am foir boo xam ne tey ginnaaw foire de Dakar amul amul ci biir Sénégal trois cent mille personnes di fi ñëw par an te ku xam l'islam xam ne bàyyi li mu liggéey ci Afrique tubaab bi damay wax ne dañu am retard ndongo daara raw nañ leen démb parce que bi bàyyi di def décentralisation nga xam ne ñun ba ñuy nekk keer di jàng siège maqar ba fa gënoon a rëy ñun ñu di fa dajale ñun ansaaru diin ansaarul xadim usratu tijaniya càddee yoo ko moom te la fa ëppoon mooy taalibey bàyyi fa la njëkk gi gisee ñu bind ci at tasawuful islam wal axlaaq nga xam ne ñooñu loolu bàyyi liggéey ko nga xam ne booba quatre-vingt-quatorze nationalité ñoo nekk foofu ñu nekk faak waa waa kër imam yi nekk faak waa kër bàyyi nekk faak ñoom siraaju ñoom munjik ñoom abib dem ñoom njool dem ñun ñii ñëpp ñu bokk nekk foofu di dund ci loolu sëriñ li nekkoon dëgg dëgg bëgg-bëgg bàyyam moo doon mu ñëw keer jàng si dañ ko toppatoo sottiwul bàyyam jël ko première salaire am ci àdduna quarante mille francs la mu dogu di liggéey ba ba réew mi yëpp ànd naw ko beneen bi ci des muy nit ki bu fekkente ne si ni dafa am mbébét sëriñ dañu ànd suñu benn mag accidenté ñu naan ko xaadim keroog mën ak sëriñ trois heures du matin mi ñu fekk jurbeel ñu ñu ñu re ñu yee médecin bi pour toppatoo blessé yi ci des yóbbu leen ma seetlu ci moom ay jikko beneen bi ku ñuy wax Pape Seck ca derk la keroog bi baayam gaañu yaayam mag sëriñ a fa jiitu dem bu demee bu ñëwee da lay laaj xalaat ne la waaw loo xool nga ne ko nangam ak nàngam mu def ki ñuy wax bàcciloo ñoo bokkoon nekk ca kokki keroog ba mu gaañoo Louga lañu fanaan fanaan ñun ñëpp ba ñu xëyee ñu ñëw mu nekk nitu yërmande damay wax ne daaray kokki ba mu fa jógee ak tey ñetti weer yu nekk yor na dundub ñeenti junni taalibe ak lu topp ak beneen facture boo xam ne da koy fay mu dem ci daara moo tax benn bés Serigne Mbaye Thiam dafa wax ne yéen waa daara dañ leen a ñee kokki la ko doon waxee mu ni tax waa daara bañ jógee daara dañoo daraat daara waaye waa tubaab bi ñoom bañ fa jógee dañoo won gannaaw tubaab bi day wane ni dëgg boo ko tëjee ci néegit boo demee ci mbedd mi fekk ko fa du changé fa maada baadal xaq ila dalaal te it sëriñ defar gi li mu bëgg a def fii ci kaw kenn waru ko empêché ba du ko def boo koy empêché ba du ko def loola da nga koy teg ci ngor wala nga teg ko ci diine mais boo ko teg mukk ci intérêt boo xamante intérêt personnel la du nekk intérêt général te loolu yonent bi artu woon nañu ci nee na bés dana ñëw lobby yi ñu fexe ko ko waroon a des ca gannaaw ñu lubil ko ba teg ko ci kanam ñu ne suuf boobaa kooko dana wax bay witti ñaqi sànni wa yantiqu fi a rooy bi da ñu ne ko yaa rasulullahi mar rooy bi da mu ne assafiihu yatakallamu fi amril amma koo xam ni dafa doye di ci lépp bu waxee ñëpp jàpp seen gémmiñ bu waxee ñëpp jàpp seen gémmiñ nee na kooku bu leen ko jiital ci kanam di ko teg ci seen kanam wala tuutu sufaha la alquran wax ñu ne lu tax mu ne du def benn résultat kooku du def benn résultat ñu ni waaw ndax sëriñ ñi ànd ak moom dañu ànd ak moom teg ko ci bakkan wala parparlo wala dañuy am yaakaar ci moom te damay wax ni yàlla julli yi ak woor yi ak natt azaka yi ak saraxe yi yokku ko dara yëg rek la bëgg yëg nag boo ko joxee sa borom mu doy ko nga jox ko sa moroom doy ko bàyyi ko ma gis ci bàyyi ñas benn mbir muy nit ku modeste la nit ku baax la te baaxam bëgg ko yemale ci boppam mais day baax ba nit baaxee ci moom moo tax shabab yi bëgg ko am tasir ci ay jeexitalam ci ay waxam te noonu mu mel même jikko même mawqif laa gis sëriñ bi yor ko néeg bi fii ngeen ma fekk sama néeg la ba mu ñi ba ma ko gisee mu toog ci lal bi laa ko xaraamal sama bopp musuma caa fanaan ba sëriñ bërki dem mu fekk ma fii mu ne lu tax ma ne ko maam Balla laa ko bàyyee ngir ma ndax sëriñ dafa maa jël yóbbu ma ci waajuram mm, euh, puut sëñ Moussa Basirou sëñ Ishaq ak sëñ Muntaxa mi ñuy waxtaan waxtaan wu neex jikko ji ma gis ci Baye maam Baye moom laa gis ci moom te mësta dañ di wax rek pour lu defaru kii bëggul dara yàqu wallahi alladi laa ilaha illa huwa yàlla bu ma gis yonent bi yowmal qiyaama ba léegi lépp lu mu xam ne buñ ko defee mu rafet buñ ko bàyyee mu ñaaw soññ na ma ci bu ci rusee wax ak sëriñ mu wax ci man loolu moom ma bàyyi fii ci biir kër gi kon ñoom ñaar bu ñu toogee fii da jàpp ne l'islam moo toog fii da ngay toog ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon woote ñi seen philosophie ànd mu boole leen ne leen kaay yow salmaanul farisi mën ngaa ànd ak Hamza diw mën ngaa ànd ak diw diw mën ngaa ànd ak Saadu ibnu Rabi ak Abdurahman ibnu Awf boole mu muhajiruna yeeg ansaar ba état islamique bi taxaw te li nekkoon bëgg-bëgg yonent bi yépp déclaration bi officielle bi inspiré tey déclaration de droit de lom mi ngi ko def ci kanamu cent quarante quatre mille personnes wax ba noppi amul benn détail bu mu bàyyi daan na ndax li ma yàlla joxoon joxe joxe naa ko ñëpp na ko yaa rasulullahi li la yàlla joxoon joxe nga ko mu yëkkati ñaari loxoom ya ca kaw ne allahuma fashhad yow yàlla seedeel na li nga ma joxoon joxe naa ko ñii dañuy ànd ak sëriñ ci bëgg kawlax baax loola nag ku yàlla nam ma fay da nga adhéré ci loolu bu la yàlla nam mu ta fay day am lu supérieur sa xel mooy doo xalaat a bokk ci loolu yàq rek ngay def tey wa min kulli seen xalax na zawjayni lu ca nekk contraire baa ko valoriser bi àdduna départ ba tey ñii dañu bëgg a defar ñii dañu bëgg a yàq ñiy wéradi ñiy wér guddi ak bëccëg wa min kulli seen xalax na zawjay ni lii nag bu amee kii ni mu kii li muy wax bàyyi mii li muy wax da ngay yëg ni ca xol bi la koy bàyyi lay jóge dañuy wax ne nit la muy daj ci wax lu du dëgg wax dëgg da ko gën a yomb moom la arab yi naan saraaxa raaxa boo boo nekkee boo amee franc parler boobu bu nekkee ci yow rek da ngay di quitte ak sa conscience loolu laa gis ci moom loolu laa gis ci maam Balla mii bi ñu ko joxee kàddu gi sax damaa mais nit la koo xam ne suba ba ngoon luy tabax rek ci lay nekk foofu la adhéré parce que adduna daa am ñoo xam ne ci yàq rek la ñu ne am ñoo xam ne ci defar moo tax bu la yàlla may dimension yu kawe yi doo fi nekk di wax murit doo fi nekk di wax tiijaan mais lii taxaw ci sa kanam muy dogu ak bëgg kon nag yàlla na ñu yàlla defal jàmm ma lu sax ci seen kanam ndax waruma woon a wax ci seen kanam mais dama am kontante ak shuur boo xam ne dama ko yëg waaw shuur boobu nga xam ne moom laa yëg dama ñëw ci dëju yi ñoom Habib Gaye taxaw xool mahad bi mahad boobu moom dafa am muaadala li ñuy wax bag boo xam ne dañ ko reconnaître itiraaf ko ca université Al Azhar ñaar la amoon ci Afrique mahad bi ak Nigéria nga xam ne dangay am bac fii rek ñëw dugg biir jamia taxasus ci kulliyaat yi benn bu la neex moo nekkoon ci bi mu ñëwee xool maahaat bi xam ñu bari ñoo xam ne daje nañ ba alaaji Taala Lo bu Sébikotane am na ñaari doomam yu génnee Azhar jaar nañ fii ci mahat bi muy Sidi Ahmed loo ak Habib Lo ñoo ngi ca France tey alors bu si bu sëriñ jógee ñag ñëw réfectionné ko defar ko di taaral l'islam taaral Kaolack kooku dañ ko war a ñaanal yàlla mu gudd fan alxuraan moo ne liy jëriñ famat zabadu fa yasa bu jufaan wa amaa maa yanfau naasa nag fa yamkusu fil bi kon bu yàlla bindee rëddee nga effacé mu rëdd nga effacé yow lay rëdd effacé la bala ngaa tal wàcc leen ko tal jataay bi nag ma tëjee ci ñaari baat parce que li tax ñoom ñaar ñu toog taalibe yi dinañ ci xamee bokk yi dinañ ci xamee yàqkat yi dinañ ci xamee ndax li ñu ma majorité mooy tax nga am nga am ko majorité nag mooy jëli ki dem téye ki fi nekk gàttandu kii ñëw loolu moo leen fi dajale penc mi tey kontaan nañ miri na tey kontaan nañ keneen ku kontaanut yàlla moom kontaan na ci bii jataay li mu doon wax wa xafatuhumul malaayika tey malaaka yeeg ñun ñu ñu ñu ñun wa zakarahumullahu fi man ay indahu kon bàyyi mii yàlla yàlla guddal fanam sëriñ bi maam maam Balla yàlla na yàlla làq leen fu yàq yéegul la imaamul Busiri wooyoon ba ñuy seet yonent bi te bu ñu xooloon ci seeni dàll mën koo séen ca pax ma ñu ne imaamul Busiri li tax loolu mënul am mu ne wiqaayatullahi ku yàlla làq kenn mënta yegg ci yow kon yàlla leen yàlla làq fu yeggul sëriñ nag mënu ma wax ci moom lu bariwul ndax koo xam bi ngeen ne ànd juróom-benn at mu teel a mokkal alquran teel a dégg arab damay dem ba ci ak léegi ma ne ko ah, léegi nag moom maa la raw ci arab léegi dafa mel ni xaalis nga ma gën a xam ak ay business waaye maa la gën a raw jóge foofu ñëw ànd nañ juróomi yoon seeti Abdoulaye Wade pour luy doxul réew mi keroog dama mujj biñ génne mën ne ko sëriñ day ki ñuy wax Salif Ba dafa mel ni ci Kaolack bu fekkoon muy dund kon dana gën a baax ndax moom meloon na ni bëggoon na Kaolack baax mais ñeneen ñi ci des yëpp décret loo ab lay Wade ba convaincre ko ba mu signé décret bi gars yi bu génnee gars yi la kon yàgg nañu moo tax fan yii yëpp mayu ma jàmm na ma fokk nga ñëw li tax ma sama nekkin fi mooy man ndongo daara la bëgguma kenn xiif bëgguma kenn mar bëgguma kenn am frustration bëgguma lépp dafa war a taaru taaral rek moom moom moo ma fi bàyyi kon nag sëriñ bi bàyyi maam yàlla leen yàlla sàmm yal na leen yàlla sàmm ni mu sàmmee Makka ak Médine mboolem luy araqi la obstacle yi ñu teg ci seen kanam yal na leen yàlla defal cër yépp ngeen jéggi ko waaw bu ko defee loolu mooy doon sama kàddu ngeen jéggal ma ci ci ci ci ci wax ji bëggu bëggu moon wax waaye jotaay bi dafa laajoon rek ah, ñu ñu kii ko léegi léegi léegi rek mbambal lu defar rek waxtu wu ne mi surtout kii waxtu wu wéeteeg man wax ju rafet te dama ko giñ te xam luy giñ charia jàng waxtu wu nekk lu rafet la may wax ci kii wallahi mu tax na sama shawq sama bëggeel ci ci kii gën a yokk waaw wallahi malaaka yaa ngi bind yàllaa ngi koy seede wa kafa billahi shahidan kon nag loolu fokk ma ma ma seede ko kon nga sëñ bi ngeen bokk ñaanal jataay bi lii ñu dëtmal lii ñu dëtmal ñu yegg ci ak jàmm ndax dëgg xaqul yaqin ak aynul yaqin ak aynul yaqin bokkul xaqul yaqin a gën a wóor te sëriñ mi ngi ci xaqul yaqin loolu leneen la waaw yàlla nañu yàlla dimbaloo salaamaaleykum